li koy euh, sabab mooy euh, bés bu mag bu ñuy waajal ci diggante Siteu ak Papa Sow ku ne xam ne ne taxaw na mais li taxaw ci biti moom mën nga ne taxawul waaw ndax nag pour mu taxaw dëgg mooy foog mu officiel ñëw nañ nag fi nga xam ne mooy CNG pour combat bi ñu régulariser ko bu jàllee nag lu la neex def xam nga def nañ face à face bu njëkk CNG ne bu mu amati. combat bu ngeen régulariser tul bu ci kenn def face à ñu ànd ci ak ñoom ndax waxtaan yi neex borom kër te ñoom lañ dénk léegi nag ñu bëgg bu ñu fi jógee tey promoteur bi foog ñu woo ñu wuy si ko lu mu ñu def noonu def ko loolu moo sabab suñuy jataay tey. kon booy boo ñu xel dal ni norme yi tax combat bi taxaw lépp seen côté matal ngeen. waaw xam nga Siteu ba mu ñëwee semaine ba la ñu génn wala bi ci topp moom ñëw na fii seen CNG ba renouveler licence am bi ma ñëw indi naa Papa Sow moo desoon ndax écurie bu bees bi mu doon bi mu sos moom it euh, li ko waroon def na ko ba it licence am nekk na raaj loolu moo waral tey ci lañu ñu war a taxaw nag pour mën a promoteur bi jëndoon na licence yàgg na kon ñu ko séq ñëpp daal nekk nañu en règle loolu moo waral euh, tey ñu war a ñëw pour officialiser combat bi. ñu gis ngeen jóg jëm ci gis bu mag. Mhm. Papa dafa tëgg ko. Siteu di ndaanaan mais jël. ki nga xam ne moom it mooy ndeyi ndaanaani muy Papa Sow hmm. jóge ci defet jël mbër ma ne Papa Sow est-ce que wóor na ci xam nga Siteu la ma ko waxoon rek euh, dara mëntula yomb ci moom mënoo di laaj yenn kase yi ba pare di tànn adversaire loolu wax naa ko moom biir néeg kon li ko war rek mooy yokk dooleem xam ne dara mënta yomb kon mënoo daanu seetaat lu woyof naan moom laa bëgg a bëreel et puis beneen bi mooy mënoo soxla Papa Sow yéen ñëpp bind ngeen ci wax ci mun a soxla Ama Baldé yéen ñëpp bind ngeen ci wax ci Ama Baldé daan Papa ñu jox la Papa Sow ñu ne risque la kon kay ñu ne bi ngay laaj Ama da ngaa dégg nga ma. dégg naa la bu baax. baax na jërëjëf. ñëpp ñu def analyse bi ci bari daan ne Papa Sow ci côté xeex bi moo gën a kay mën a xeex xeex bu jaadoon moo gën a gaaw moo gën a vif te moo bëri loolu yow en tant que manager am entraîneur am loolu ci yëpp. li ma la mën a tënkal mooy jëluñu combat bi pour daanu. Mm-hmm. ci xalaatoon daanu duñ ko jël. xalaat nañu ne dañ cee war a jaar dem biti leneen ba adversaire beneen bi ñu war a jël sax ñu ngi ciy xalaat ak def suñuy jàngat hmm. waaw bu ñu jógee ci combat bi c'est juste pour won la rek ne la xalaatuñ ci daanu te buñ gëmutoon ne mënañ cee génn duñ ci dugg donte champion la nag euh, sportif la xam nga ku bëre lu jege ay 30 combats miin nga bés ndaanaan la mbër la mu ñëpp respecté mais daal combat bi ñun am nañ ci yaakaar bu baax te xalaat nañu ne yàlla dinañu ci may ndam ku xam si xam ko ci innovation xam ko ci mën bi macha allah. Mm-hmm. Pape Abdou woote seen ndaje deuxième ndaje bi di suba nan ngeen dara dikkee. xam nga nag si moom ñoom sax léegi xale yi tooñ ma naan yaay papaay tarkindaa yi mais li ma la ma xamal moom toujours ay mbiram day bette moom. xam naa ne daal xam nga indi na fi doo cent franc indi moom lu ne lay indi bii nag xaw ma ci lu mu ne nag pour dire vrai pour wax dëgg rek. même daal xam naa ne moom toujours mu créé surprise moom beneen affaire la ndax moom lu ko yàlla defal la tuddee ko le phénomène. xëy na suba mu indi beneen slogan loolu moom xaw ma xam xamunu ma cee wax dara xamaguma ci dara daal waaw. permanence ñu bari ñu ne Siteu dafa nekk ci tànku Ama lay roy. Hmm. ndax wax nga ko léegi sànq. nga ne ki bëreeg Papa Sow bëri na ak ki nga xamante ni moom mooy Ama Baldé hmm. léegi ñu ne adversaire yi Papa pour mën a ubbi bunt loolu moom moo tax xam nga loolu moom xalaatu nit ñi la rek mais surtout ku ne xam ne ne mbër la moo xamante ne nii bi mu daanee maalaw seeraas bu ngeen fàttali ko 2002 benn émission ne nañ ko jox Lac Rose ma ne ko doo ko jël Lac Rose jamono yi mënoo bëri ak moom bi mu jógee ci Zarko daf ne ma tafaatin laa jël ma ne ko kon say mbokk dal ci man c'est juste pour woon fitam ak moom moom xalaatam bàyyi fi benn mbër. ma ne ko yow boo jëlee Tapha Tine say mbokk ci moment bii dafa teel kon moo lay wan ne du Ama balde rek Siteu gëm na ne moom mbër mu ne war naa bëreeg yow moom gëm-gëm boobu la am kon royu ñu ay Ama Baldé déedéet toppuñu ko buñ làmb boolee nag dañuy bëreeg moom Ama champion la euh, du hasard mu dem di xëccoo ju roi des arènes kon kooku ne boo sañoon bëreeg moom ndax dafa bokk ci adversaire yi loolu rek la mais du pour topp ko mais li wértoor daal ku ñu làmb boole rek matukaay yi war a jël yëpp danañ ko jël di xaar yàlla may ñu ci ndam ndax nag moom suñu borom a ko yor mais sabab lu rek même même même rëbb bi booy rëbb bi da nga yor fetal yor bal diir tiire yàlla doog a ñëw parce que bul tëdd rek naan yàlla yàlla bay sa tool doy leen na àdduna tëddeewul noonu da ngay sabablu suñu borom doog a ñëw beneen bi mooy. Mhm. wàllu violence ñu bari dañ ko dëkkee ci camp boobu noonu. Mhm. ndax gis nañu comme. boobu nan. ka ka parkindaay daal. de gëj nañoo bëri te yaa ngi gis violence. non fa laa bëgg a ñëw may ma. dañoo bëri de te yaa ngi gis waaw ndax gis nañu sa combat ak guy gi. sa mhm. combat ak guy gi. am na violence. te barki Dembo Ndiaye am na combat boo xamante ni combat Alioune Seye 2 ak ki nga xamante ne moom mooy ñàkk jariñ est-ce que yéen a ngi éviter loolu noonu. Euh, question bi ni nga ko tënkee dama ci àndoon da ngaa jël violence solal na ko mu bëgg nun sol nun loolu laay lànk dama la ma bëgg a dégg mooy violence bi ci arène bi te léeg-léeg sa waa kër yi bu ñu bëree dina am comme ni muy amee ci ñeneen su boobaa nga xam ne da c'est général loolu nag solution la ci ñëpp war a wit yëf yi ñëpp la ndax benn bëñ dafa war a fonk weex ñu bëri dañuy dund làmb mais du ñëpp ko bëgg Euh, bi violence bi amee ci àll say ñaq jëriñu ku ne ngi wax ba sax man boo ci sorti yi ma def dama naan nañ fàttaliku euh, AS Pikine bi muy dajeeg Casa au moins pour tempérer ñu xam ne violence bi ci nawetaan yi fépp la am mais duñ jël làmb ji rek ne violence moo waral sponsor yi daw loolu dañuy wax rek violence am na fa ci assemblée dañuy xeex ak def lu ne nañ bàyyi loolu li li am solo nag mooy nañ defaraat toogaay bi xam ne boo ne woon dañuy xeexi kenn du ñëw li muy làmb la sport la nañ ko rafetal mbër mi bu la yàqalee sa làmb xëy suba liggéey moo xam liggéey bi muy yëngu yow nga xëy def lan kon nañ defaraat entourage bi ñuy entouré xale yi képp kuy yàq bul nangu mu jege la ndax làmb nga am bul nangu ñu yàqal na ko loolu conseil la bu ñuy jox ñëpp man même bu dul sama waa kër su ma gisee nit ñi xeex ci tur bi dafay am lu man naqar yi ndax man damay dund làmb dama ko bëgg man su ma sañoon benn làmb du yàqu bañ naa ko ba ko attaqué làmb dal sa kaw gis nga entrepreneur bi doon defar stade Demba Diop Euh, danañ ko attaqué ci ay émission ba mujj gi day mujj naan Malick Thiandoum sa kii dafa may attaqué ndax booba daf ne euh, synthétique bi bu ci mbëri tuusee yàq ci du euh, du dem 10 ans ma ne ko dañ ko war a nangu jox ko keneen contre ma ko mais c'est juste man ku sànni xeer làmb rek ma dal ci sa kaw ndax man pour man mbëri dama leen a jaboote te it ba ku ci ne li nga yaakaar ci làmb da nga ko war a am man làmb dama koy dund bu ma sañoon ko takk ngemb jariñu kon violence bi man maa ko gën a bu ma sañoon do su làmb jeexee ñuy romb nit ñi di dóor oto yi di këpp sama xol bi day jeex bugguma mu demee noonu stade Iba Mar da nga daan gis cordonnier yi bu làmb amee ñuy tëj ñuy jëli xeer te ñooñu làmb sax yitteelu leen làmb jëkkatu leen mais ñiy gàmmoo ñuy raas dem bokkuñu loolu la ñuy def ci nawetaan yi di ko def ci lépp kon moo lay wan raxas lañu ñu war a def rafetalaat mbir mi yaraat xale yi ñoo xam ne violence bokkul même ci sport même réew mi soxlawu ko loolu moom koy ñaawlu père père Max gannaaw ñu la nuyoo sa poulain Siteu mu nekkoon États-Unis doon euh, def foofu li nga xamante ne moom mooy MMA bi ma tasee yow laajte la li nga xamante ne moom mooy préparation MMA ak lamb bi ñu benn ñu mm-hmm. ñuy fii ñun ñoo koy mm-hmm. ci préparation boobu ñu teg ci ay quelques mois mu daal di ñëw ci làmb xam nañu bi fa nekkoon mu nekkoon ci préparation MMA combat MMA nekk foo woon pour bi ko gisee état bi bokkut ak par rapport bi mu dem di préparer li nga xamante ne moom mooy làmb moment bii nii ndax ci diggante fii ak làmb ji di am dana génnaat ñëwaat wala fii lay toog. waa xam nga dafa jege. gaw ma mu génnaat mais li ma la wax rek MMA foog nga foog nga gaaw foog nga mobile. moom sa yaram. ndax sport de combat yëpp la ñu boole def ko benn benn benn benn benn benn benn discipline. kon moo lay wan ne boo mobilul gaawoo euh, doo ci doo ko doo ko mën a réussir. Mm-hmm. mais nag sama xam-xam bëriwu ci loolu sama xalaatu bopp la rek. Mm-hmm. mais làmb moom xam naa ci tuuti xaw ma ci lu bëri mais xam naa ci tuuti xam naa ne boo wooyofee bu ñu la këfee mën nañ la yegg fu la neexul bala ngaa xalaat yu daan moo waral ba nga waxee loolu may la nag fee dafa wooyofoon foog mu jël poids pour mën a taxaw ci ay tànkam bu ko defee li mu bëgg a liggéey mu liggéey euh, loolu nag ñu ngi ciy liggéey te xalaat naa ne bu ñu demee bala 5 bu sumee ko danañu xam ne liggéey nañu incha allah di ñaan nag suñu borom may ñu ci tam comme ni nga koy waxee par rapport ak ñu parce que xam nañ ne sportif pour mu jël euh, benn masse musculaire bi yomb wala bu fekkee jël na ko mën a kaa handicapé ci mais bu dee sportif nga xam nga ne liggéey boobu mooy gën a métti sax jël pois parce que la ngay daw muy bëri loolu doo ko daw fii li mu doon daw da daan daw lu ëpp 15 kilomètres. fii boo noppaloo wàññi rek da nga jël poids bu dee sportif nga pour 10 moo gën a yomb wàññi poids moo gën a jafe. jël poids moo gën a moo gën a yomb moo gën a yomb bu dee xam nga dara ci sport. alors muy bëri ak Papa Sow ñu gis ni première face to face bi mm-hmm. Roussel bi xaw na am tuuti respect bi daw na lu bëri seen diggante. Mm-hmm. te tàmm nañu di gis Siteu bu ñëwee day tàng indi ay slogan yu bees supporters yi di jëmbu nga xamante ne danañ toog benn 4 mois ci ginnaaw gars yi di wax ci li ñu Siteu wax dugg na fii génn fee adversaire bi mu ko toll bii ñu gis ni lépp dafa sedd lu ko waral. waaw bi da ko waral xam nga keroog yaa ngi dégg bi ko journaliste yi laajee seen mbokk yi bi ñu ko laajee Siteu. mooy leen tey face à face andiwuma dañuy présenter affiche bi mais bu ñu tollee ci face à face lu ngeen ma laaj naa leen ko wax kon xam naa ne suba. déglu leen ko rek moom borom yi bagage la de. borom yi bagage la borom yi bagage la. borom yi bagage la. bëri na ah. ak ko mu mhm. daanu. papa bëri ak Zoss yoon. ci wàllu xeex fan nga ci toll parce que papa nekk na adversaire na waaw papa mën naa xeex man naa bëre. ñun nag tuuti xeex bi man gëm nañ ko naw nañ ko xalaat na mën nañ ci am ndam mais nangul nañ ko mën a xeex nangul nañ ko mën a bëri mais ñun li yor doy nañu sëkk te ñu xalaat na ne dañ ci am ndam waaw loolu daal la am seen mobilisation suba nan ngeen fas yéene ñëwee ak lan ngay wax euh, supporters yi. non surtout moom xam nga moom waxuma du li ma ko yor mais même euh, taximaan yeeg yëpp dañ naan dañuy yàkkamti moom am combat ndax dañuy liggéey loolu ko yàlla defal la. et boo seetloo Siteu xam nga da tudd yenn mbër yu mag yi ñaan cinquante car quarante car mais Siteu benn car du du taxaw buntu këram te stade bi da koy duy ba nga jaaxle loolu suñu borom lu mu ko defal la te it nag euh, mi ngi ci kanam ci kanam tuuti nga xam ne nag euh, moom sax dañu naan ko yalmin yalmin la ko xale tuddee yalmin waaw yalmin mooy borom dëkk bi waaw yalmin waaw xale yalmin la nga koy wax walaay boo xam ne yalmin ñëw na loolu moom <laughs> bu ñëwee ñu xam ne yalmin ñëw na waaw Euh, Abou Ndour ree na moom xam na lu yàlla mi ngi séeréer la <laughs> waaw li ci des nag di euh, di woo ñëpp rek ñu defaraat toogaay yi jàpp ci làmb cinquante 150 cent 160 écrits kon nii ni nawetaani mel loolu la làmb mel kon bu làmb ji mbëri bëriwuñ mën naa yàq lu bëree bëri kon na ci ñëpp dugal seen loxo te état bee ci war a jiitu jërëjëf